bi dem na Zemkane Lat Dior at bi sifflé na génn na eh, genn sen na comme ni ma ko waxe tay la dimanche tay la samedi samedi 16 juillet 2022 ñooy à l'arène nationale le promoteur Ouzin à la tête de la structure Ouzin production mo organisé Zemkane face à Lat Dior waaw waaw waaw waaw waaw waaw Lat Dior sëq na ci géño gi Zemkane mi ngi door Zemkane mo mo ñu woon ginnaaw noonu mo ngeen mo ngeen lu xonku li ndaysan mo tent bopp bi Diém Kane moo jógee parcelle waaye kii di Lat Dior Lat Dior moo jógee Géejawaay Lat Dior moo jóge Géejawaay école de l'île Balla Gaye waaw waaw Diém Kane face à fii sama wet am na xam ne toogatuñ taxawatuñ ndeysaan waa parcelle lañu Diém Kane la ñuy supporté <laughs> waaye waa Géejawaay ñu ngi lele may jàkkaar lool waaw waaw Diém Kane Diém Kane écurie le poulain de Moussa Dioum ndeysaan tey rendre na hommage Moussa Dioum le poulain de Moussa moom mooy bëree ak Lat joor le poulain de Balla Gaye 2 waaye tey Youssou Ndour moo ko indi waaye tey Alioune Seye numéro 2 ndeysaan seen grand frère moom moo ko dar malgré le fait que ne bokkuñu écurie waaye Alioune Seye xamul loolu Alioune Seye moom 100 pour cent géejawaay bi lay dund moom géejawaay xale buy bëre da lay soutenir ndeysaan da lay taxaw da teewal sa bës waaye kii di Lat Dior coach Lamine Golo moo ko indi coach Lamine Golo moom moo ko toogal 16 coach Lamine Golo moo toogal 16 kii di Lat Dior ana mbës sama turandoo mi ngi ci ginnaaw ndeysaan Samba Lawbe toogatul taxawatul Youssou Ndour toogatul taxawatul waaw waaw waaw waaw Lat Dior attention Zem Kane tel na ko léegi Zem Kane dafa mën loolu noonu la daane woon Cheikh Benja geste bi mu def léegi geste technique bi mu effectué léegi moom la daane woon Cheikh Benja Zem Kane da lay tël da lay tël xandal la wëndeelu ak yow waaw waaw waaw waaw dem nañ ci suuf attention attention Zemkan attention Zemkan bu ko forcé Lat Dior dafa entraîné combat bi Lat Dior dafa entraîné combat bi Zemkan bu ko forcé Lat Dior dañ ko yónni yàkkamti ko waaw waaw le poulain de am noonu Lat Dior Lat Dior face à Zemkan Zemkan mbër bu xees moom moo tent boobu noonu tent bu xonk waaw waaw waaw waaw attention Zemkan, attention la Dior La Dior mon ngemboo ngemblu ngemblu bleli nonu La Dior Zemkan. La Dior face à Zemken. La Dior face à Zemken. Waouh, waouh, attention mingi Djema Djati plan Dior ne bëgg pas emprunter plan Waouh, waouh, grand combat grand combat mesdames et messieurs le grand combat d'aujourd'hui on en est au combat phare de la soirée qui oppose Zemkan de l'école d'élite, de l'équipe de Parcel Molo, autant pour moi, Zemkan de Parcel Molo. Face à qui Face à Ladjo de l'école d'élite Balagay. Le combat, le combat phare d'aujourd'hui oppose deux jeunes au style différent. Ladjo a devancé là, autant pour moi. Zemkan a devancé Ladjo dans l'arène. Mais la l'Adior a fait ses preuves pour atteindre son niveau aujourd'hui afin de l'affronter dans l'enceinte. Attention, attention. Waouh, waouh, waouh, waouh. Dannoko, danako! Danneko. L'Adior Dannoko. L'Adior Danne Zemkan. La L'Adior la Zemkan. Ndeysaan am na lu ko bett am ko metti. Waouh, waouh, Zemkan danuna! La L'Adior Danneko. la jor dan ko la jor bu ekol de lit balla gay dan na zam kan jël bu reuy jël bu leer jël bu amul ben wérante mi ngi nonu ndeysan le jeune espoir l'enfant prodige de gejaway le poulain de lamine golo bere na bere bi dan na jël bu reuy la jor mi ngi ci yonam la jor mi ngi ci yonam ndeysan mi ngi nonu bere na bere bi dan na jël bu reuy le poulain de mbass le poulain de Gakou 2 le poulain de Youssou Ndour bëre na dans bi dan na jël bu rëy jël bu ainsi ça c'est blasonné d'aujourd'hui mesdames et messieurs La Dior vient de terrasser la Dior vient de terrasser Zemkan, d'une suite claire et nette il l'a prené dans son ascension La Dior vient de freiner Zemkan, Zemkan s'est incliné il s'est incliné face à la Dior aha la jeunesse a eu raison de l'expérience, puisque Zemkan est beaucoup plus expérimenté que son, adversaire du jour, Ladjor. Mais Ladjor a peaufiné une stratégie gagnante. La stratégie de Ladjor a fini par avoir raison. Oh, oh appréciez mesdames et messieurs, regardez le malheureux du jour, Zemkan. Il a courbé les signe, et s'est incliné face à Ladjor. La va devoir poursuivre son ascension vers le sommet de l'arène. Il a gagné le premier grand combat de sa carrière aujourd'hui, samedi 16 juillet 2021. On est à l'arène nationale. La journée d'aujourd'hui porte la signature de la structure. Ouzin Production, avec Ouzin à la tête de la structure. La poursuit son ascension vers le sommet de l'arène. Il vient de terrasser Zemkan. À qui le tour Qui sera son prochain adversaire Le prochain adversaire de la Dior, c'est qui à qui le tour, mesdames et messieurs. En tout cas, aujourd'hui, il s'en sort. Il s'en est sorti victorieux. Il vient de tirer son épingle des aujourd'hui. Face à qui Face à, Zemkan. Au bout d'un combat âprement disputé, il s'en tire, il s'en est, il s'en est, il s'en est sorti avec une victoire. Il poursuit son ascension vers le sommet, le voici. Il poursuit son ascension vers le sommet de l'arène. Le voici, la Dior. wa ma ngi nuyu yëpp di sant ñëpp di sant ñi ci combat bi la joro amul dara dañ ko doolal rek waaye damay wàlli boy ñu ngi si li ñu war a nekk dañuy entrer na caaxaanu ñu sama grand bi dama romb jaar ko si yoon am na si ma jaar man wala ci lamay entrer waxuma may ku lu jëm bu ñu ma ko joxe ma daan ko man tam nag dimanche dama koy entrer moom mii seet si na ma ku ne seet si na ma man aw ma fi kenn ci entraînement tamit lépp ñii ñii mais tamit du ma wax dara lamb ji moom maa ngi fi di liggéey rek sama ko Soulamine ku ma booleel ma bëre ak moom waaw jëm dama ko jël coow li bëri moo la mag ci lamb moo la njëkk a bëre moo la bu doole lu ne dégg naa ko ma xam ne damay liggéey caaxaanu ma sama coton ngi taxaw mi ngi nii moo ma yor musculation yëkkati lu àll ñàkk si man war na alxuraan mi ngi nii taxaw mais li ci kanam rawul bët yàlla baax na waaw waaw nañ ma jox samay morom costu Lamine Faye ku ma bool Coly Faye numéro 2 nañoo ñu bëre Coly Faye ñëw ñu 2 nañoo ñu bëre waaw dafa mën a bëre waaw jour ji lépp dina leer dinaa leen wan ni liggéey naa waaw mais tey wane fulla fayda waa ñi si kaw nañ ma leen jox ku ma Lamine wax sama coach Lamine ku ma ku ma booleel ma bëre moom Boy Seye ñu bëre Boy bëgg naa ko man bëgguma lu yomb maa ngi sant tamit Ablaye ak Souleymane lépp ñoom la mais booy na ngeen ñu bëre booy parcelles yi pare guma si ñoom ah Petit Lo moom daa mooy Petit Lo ñemewu ma Petit Lo ñemewu ma ñu mais seet nañ ko mu daw parce que sëñ Tuubaa romb naa leen mais li si kanam rawuli bët yàlla baax na